c'est la référence. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye daleen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci bopp xibaar yi eh, Flexio nag la ñu soxlaatul nag ci région bu Kaolack ak Kaffrine la ko waral nag mooy lu métti li ñuy teg askan wi ci lu jëm ci wàllum ndox eh, tax ba nag Union nationale des consommateurs du Sénégal àddu nañ ci nag te di waajal juróomi fannu ñaxtu ngir daal Flexio teggi tànkam ca bërëb yooyu lee daañu ca dikk ci biir xibaar yi Promogem nag amaloon saytu nag ci place yi féetee eh, ci centre commercial Maam astu Diank ci Medina Baye eh, ngir tamit nag xool lu jëm nag ci wàllum julaga ana nan la fa tëddee gannaaw juróom-ñeenti weer ba ñu ubbee centre commercial bile daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne ñaar fukki tëyër nag la ñu doon tàggat ci diiru fukki fan ak juróom mobile national nag defal ko artisan yi féetee ci diwaan bu Kaolack ngir nak ñu gën a mën a suqaliku ngir seenub liggéey gën a mën a dëgër ak xarañte bu wóor nag nañ ca doon saytu tàggat boobule daañu xibaar yi le 17 ak le 19 nag service d'hygiène ak mairie bu Kaolack nag nar cee amal opération nag daal di pompe dëkk bi ngir tamit nag wàññi yooyu ci nawet bi xam ne yooyu lee dañ ca dikk ci biir xibaar yi buñ ca noppee dañ ca taftal xibaaru bi ci réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane xibaaru yoonu màggal ma Mamadou Moustapha Mbaye seen bokk yi le bokk ci li fi nara a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxir lu tuuti ma dugg ak ci yaatal wi ak faram fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon xibaar yi ak Mariama Ba bakk ba jib naa ba noppi Alfayda FM kàddu gi di bàyyikoo ci dëkk bu sell bii di Medina Baye eh, juróom-ñeent fukk yu toftal benn ngeen koy teewloo ci diwaan bu Kaolack nangaan senegal ak li ko wër eh, tey nag di fukki fan ak juróom ci weerum août atum ñaari junni ñaar fukk ak ñeent eh, njàppalu alaaji alaaji Moussa Kane la ñuy seen ci machine bi na ma ko jinjee woon ca bopp ba rek noonu lay duggee ci yàttal week faram fàcce bi Union nationale des consommateurs du Sénégal nag di mbootaay woy jëfandikoo yi ñoo ngay naqaru nag ak kuréelu Felex yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci région bu Kaolack ak kafrin la ñuy sàkku daal mooy Felex googule daal di teggi tànkam ca région boobule ndax li ko waral daal ñu ngi tekk askan ba fa faytee eh, ci lu métti nag ci wàllum ndox tax na nag ñu yëkkati ca seen ay kaddu ñu teewlu ci Alioune Badara Diop. ginnaaw doxalin bi nga xamante ni nag dafa gàllagu si lool te nag kuréel gii di Felex mu ngi koy doxalee ci ñaari région yi lii di Kaolack ak Kaffrine Union nationale des consommateurs du Sénégal nag ñoom ñeen taxaw kuréel gi di Flex'Eau di yëngatu ci wàllum séddale ndox mi mu jóge fii ci nu ma gën a gaawee Adnan dem moom mi ne nag mooy coordonnateur UNCS du Union nationale des consommateurs du Sénégal. sama tànk yi tànk naqarlu la ak tànk loo xam ne wax li nga xam ne population bi nekk ci région bu Kaolack ak région bu Kaffrine yëpp naqarlu nañ ko parce que jafe-jafe ndox bi am ci fii nga xam ne mooy deux réseaux yi nga xam ne Flex'Eau moo ko yor yor DSP bi jafe-jafe ndox yi bët bu mu ngi gën di tar di gën di jafe di gën ñun xeex àq ak yelleefu askan wi mooy suñuy mbébét mooy suñuy tànk mooy li ñuy xëy di ci gont dem nañu rencontré ministre bi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Dieye wax ko jafe-jafe yi nga xam ne commune bi nga xam ne mooy région yi nga xam ne mooy Kaolack ak Kaffrine ñu ngi koy jànkatoo ci jafe-jafe ndox ñoom ñu ne nag bañu ci sax ba àpp nag juróomi fan yoo xamante ni dañ koy tegale di amal ay yëngu-yëngu ngir kat wane seen naqarte jëmale ci doxali bi nga xamante ni Flexio mu ngi seen bëgg-bëgg bokk na ci nag contrat bi nga xamante ni Flexio am na ko ak Ofor ñu dakkal ko ndaxte nag qualité ndox mi sax baaxul. ñuy demander population bi yëpp ne nañu déglu suñu mot d'ordre bu ñu leen joxee ñëpp nañu génn yoo xam ne dinañ ko tegle demander état bi mu li nga xam ne mooy DSP bi nga xam ne joxoon na ko Flexo ndax dañoo cuune te munuñ a bàyyi. moom que OFOR bu moom mooy yor supervision de l'eau moom bu ñëwee ci li muy ñëw ci forage bi lay ñëw mais forage bu fa ndox mi jógee dafa am ci ay tiwo yu muy jaar tiwo yooyu day toj ci àll bi bukki di ci naan mbaam yi di ci naan naan mbaam xuux yi di ci naan lépp di ci fo léegi yooyu yëpp salte yooyu yëpp di duggaat ci canalisation yi nit ñi di ko naan kon day dem ba mujj gi santé publique lay nekk kon daal ñun li ñuy demandé mooy Flexo bu dee tële na ba mënatul na génn région bu Kaolack ak région bu Kaffrine ndax fépp foo xam ne ci région yii la jafe-jafe am na fa mu doon jàmbat boo xamante ni nag ñu ngi koy jàmbat ci lu yàgg lool ci ñaari région yi lii ci mel ni Kaffrine ak Kaolack ginnaaw yéen ci yoo xam dinañ ko ko nag ci yéen ci ay gox mën na si jàpp nag diwaan bokk si ñaari région yooyu li lii nag tax na nag union nationale des consommateurs du Sénégal jug nag di interpeller gouvernement bu yees gi li ngi ka mu dakkal doxalinu lii di flex o ndaxte nag jurulu lu dul coono askan bi ni mel Adnan Deme nag moom mooy coordonnateur union nationale des consommateurs du Sénégal moom naka la muy xamle mooy euh, Flexo daal mënut yor wàllum ndox mi ci région bu Kaolack ak Kaffrine euh, te it tax nag ñoom seenu kuréel gi la taxaw nañ ngir amal euh, juróomi fan yoo xamante ne bii daañu ko ñaxtu ngir daal Flexo teggi tànkam ca bërëb yooyu lee kàddoom Alioune Badara Diop moo ñu ko taataanal. population bi ak Flexo seen problème yàgg na ndax rapport bee ma mu ngi nekk rapport Cour des boo xam ne DSP yi nga xam ne 4 rapport cour des comptes bi wax na li ñu def ki ci gën a bon li mu def gën a ñaaw li mu def gën cee yées li mu def mooy Flexo léegi moom nanguwul def ci état bi dara mais nanguwul population bi yoral ko fukki dërëm facture yi cher na compteur yi cher na maintenance amul dara amul moom daal lii mbiram mooy boo ñëwee daf naan la man li may def production laay def distribution et commercialisation laay def te nag loolu nekkul ci li nga xam ne mooy contrant bi contrant bi li ci nekk mooy production distribution maintenance réseau ak commercialisation maintenance infrastructure nag loolu réseau lu offort la mais toujours ci diggante boobu lay làqu mais Flexo yemul ci loolu tële gi mu tële ak cuune gi mu cuune léegi dem na ba moom mënatul waaye nangu la bàyyi ne mënatul dafa jël ay plombier jël ay ferrailleur jël ñoo xam ne ay jaaykatu géej gi lañ am ñoo ay jaaykat liggéeykatu kecceex lañu woon ne leen léegi dama leen di dénk ay gox ngeen yoral ma ko comme moom Flexio moo tële mënatul est-ce que mun nañ jëlee benn plombier boo xam ne combi la dëkk yóbbu ko fi nga xam ne mooy commune bu Thiaré benn plombier boo xam ne fa la nekkoon ñu yóbbu ko ne yow léegi géré ñu lat mee te gox bu ne am ñu ko mun a gérer te moom contrat bi mu am du contrat intermédiaire la am bu leen contrat intermédiaire la peut mu mun a am li nga xam nii bu paree nii dañ ci interpellé waat le ministre ndax woo naa ministre bi léegi fekk mu nekk en réunion mu envoyé ko message mu tontu ma dinañ tamit def conférence de presse dinañ woo population yi nga xam ne ñoo nekk ci région bu Kaolack ak région bu Kaffrine ñu tegle cinq jours yoo xam ne dañ koy marche demander à l'entreprise Flexo que mu quitté fii nga xam ne mooy les deux raisons waa région de Kaolack ak xam nañ ne Flexo dafa tële dafa cuune mënul ku mënul nag da bàyyi ñun nag bii lii amee tamit saisir nañ li nga xam ne mooy association africaine de l'eau saisir nañ ko war nañu recevoir ñu waxtaan ak moom xamal ko li nga xam ne la Flexo nootee askan wi nga xam ne moo nekk ñaari régions yi di Kaolack ak Kaffrine Eh, ca diwaan bu Saint-Louis la ñuy daal di dem nag ndongo yi nga xam ne ñoo fayte ca daara ju kawe ja mu di UGB nag amal nañu ndaje ak janoo janook taskatu xibaar yi di fësal nag jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ca université boobule eh, ci dundin bu métti ci ñàkkum ndox gu tar waaye rawatina itam nag ndoxu foos yi nga xamante ne ñu ngay wal foofu foofule ca daara jooju eh, seen janoo ba ak baax a jóg. taskatu xibaar yi la ñu jàkkaarloo woon ngir ñu xiliñ dëxañ ci seen biir xool ci naqar loolu tax nag ñoom coordination de étudiants yi nekk fii ci UGB. foofee muy université Gaston Berger bu diwaanu Ndar Géej di xamle ne dund gu dee gën dund fu mu toll li waral lu nu mel nag. parce que ñun ci université lañ nekk université bi nga xamante am ndox nekk na fi loo xamante ne lu jafe la nga am ndox boo sangoo da jóg deux heures du matin pour root problème dëkkuwaay yooyu dafa impacté sax ba ci assainissement suñ demoon campus social ma woon leen ay chambre yi nga xamante ne nga dugg fa da ngay xuus ci biir ay foos wala ci biir ay ndox foos pour dugg ci chambre yooyu premier ministre ñëw na fi ministre de l' enseignement supérieur ñëw na fi ministre de l' assainissement ñëw na fi ñoom nee nañu tour de lëf lañ doon fubale tey tour de lëf kenn mënatu faa toog waxuma laak nga fay xalaat fubale parce que soo fa toogee da ngay fàtt say bakkan ndax xet bu bon ànd ak loolu ne nemmeeku nañu ne mille trois cent cinquante six lal moo fi nekk ci dix neuf mille étudiants loolu lii day firndeel ne trente cent dong la ñu daal di loger ci bile université daara ji di jànkuwanteel ay jafe-jafe yu ci wàlluk insecte recruter. sept ligues ci trois salles dix neuf mille deux cent étudiants loolu yenuwul maanaam ñu ngi woo autorité bi mu jël ay mesures ci loolu pour mu jàppale ñu ñu jéem a résoudre problème yooyu université am nañ ay problème ambulance parce que fii ngay woote urgence da ngay toog à vingt minutes wala trente minutes sax doo gis ki nga xamante ne taxaw loolu bëgg nañ ñu ci ay solution waxoon nañ tamit ci extension centre médical bi dinañ ko livrer en mai ba léegi kenn livrer ko université ay ñaawteef semaine bii passé rek première porte fële wax nañ ñu fa ay cas d' am na ñetti jigéen yi nga xamante ne agressé nañ leen fa ba centre médical ba la mujjee ñoom ñi le li ñu tàmbalee seen conférence de presse bi mooy jëm ci une minute de silence lu waral lu nu mel nag mooy seen ay naataango yoo xam ne daal dinañ leen di faat ci daara ji par ce geste la coordination des étudiants de Saint-Louis rend un vibrant hommage à nos martyrs qui ont perdu la vie suite à des violations de la loi numéro 94-79 17 11 mois 1980 14 relatives aux franchises et libertés universitaires. ñooñu nag 15 mai 2018 Fallou Sène daal di ñàkk bakkanam 9 février 2024 Alpha Yoro Tunkara daal di ci topp 21 février 2024 Clédor Prosper Senghor moom it daal di ñàkk bakkanam ñi ñëpp nekk ay étudiants yoo xam ne ci biir daara jekk ci buntu daara ji la ñu daal di ñàkkee seen bakkan loolu tax nag ndongo yi di sàkku état bu Sénégal mu andiwaat justice ci lu nu mel ànd ak loolu la ñuy gën a sàkku du lenn lu dul loi amnistie bi ñuy dégg seeni ay camarade bu ñu ci bokk bu ñu leen faat nañ leen yóbbu ci yoon ànd ak loolu nañu daal di accompagner seeni ay famille Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop ñu bàyyi ko ca diwaan bu Saint-Louis nag daal di teet si waate ci Kaolack nangaan uh, juróom-ñeenti weer nag gannaaw ba ñu ubbee centre commercial Maam Astou jànq uh, ci dëkk bu sell bi nag di Medina bàyyi saytu nag amal nañu ko ca centre ba uh, ci xool nag ñaata place ñoo fayti fufule ci centre bi ak itamit nag wàllum set gi nga xamante ne bii na mu nga cay taxaw saytu beeg Cheikh Tidiane Diagne yëngu-yëngu yooyu ngay nemmeeku ci centre commercial Maam Astou Diankh bi nekk ci Medina bàyyi gannaaw bi ñu ko ubbee ak tey mu toll ci juróom-ñeenti weer ñu demoon nag xool yi ñaata nit ñoo jot seen i place ana ñan ñoo jotul li bind woon ak limu ñi nga xamante ne ñoo ubbi seen i cantine ana ñaata lay tollu laaj bi ñu mel la ñu sampal Ousseynou Fall mooy chef d'antenne Promosem ci centre Maam Astou bi nekk ci dëkk bu sell bi. marché bi dafa am ñaari phase phase bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne nii tey amoon nañ place ci marché bi avant ñu koy toj ñooñu la ñu wax les ayants droit bi ñu defee marché bi pare dañ leen oo jox leen seen place léegi ñoom ñu ngi tolloon si juróomi téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñett yi am nañ juróomi téeméer yu manqué benn yoo xam ne ni ay cantine lañ léegi li ci des mooy fanweer ak juróom-ñeent ñoom ay table lañ ñoom jot nañ seen place mais malheureusement si juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yooyu ñaar téeméer ak fukk ak benn maanaam mooy 211 rek ñoom ñoo ñëw coow li bëri woon loola làmbatu commerçant yi nga xamante ne amoon na ci waaye nag jamono ji dafa mel ni kenn déggatul la collectif ànd suqali wala ànd taxaw wala sax ànd defar marché bi loolee di tekki ne ñu ëpp ci commerçant yi jot nañu seen i place njiitu Promosem di ko dëggal la. dañuy la 288 presque lu toll si ñetti téeméeri nit yoo xam ne ni jël nañ seen place ba pare dem tëdd ci dëkk bi ngi tëj moo ëpp lu tijji loolu dalul xel. ay kàddu jiboon tamit ci wàllug entretien waaye tamit doxalin bu méngoo ko jamono ngir lépp loo xamante ne dafa ñeel wàllug rëq-rëq ci barabu jaayukaay yi ñu koy nemmeeku léeg bokk na ci wàllug raxas mi toppatoo gi ak cet gi ca marché bële loolu yi doonoon na lu ñu doon annoncé ci jamono yooyu waa Promosem ne li ñu waxoon dara soppeekuwu ci. marché bi tey dafa am ñaari équipe de balayage boo xam ne nii dañuy def rotation benn bi suba beneen bi dañuy def rotation ngoon bu dee électricien bi yow mi nga xam ne yaa moom place amoo droit dem jëli sa électricien bopp ñu indi marché bi dafa am électricien boppam amut branchement ni tey da jël sa prise rek branché ko mu dem fële keneen branche branchement anarchique yooyu amut fi yenn ki matériaux dañ ko fi ay lu mel jël sa gaz teg nekk si biti taal ak ki nekkul place lu ko neex mu def te exemple boo ñëwee ñu jox la place bi ne tissu nga a jaay ay ceeb li rek moom nga fay def se dañ ko répartir par secteur jafe-jafe nag bu dee am na bokk na ci ay nit ñoo xamante ne jamono ji mu ne jox nañu leen seen i cantine ba noppi waaye ubbiwuñu ko lu ni mel dina saxal xom-xom gi waaye tamit indil leen ay rëq-rëq ak lu mu ci mënti doon lu jëm ci wàll wàllu payoor gi ñeel commerçant yi nga xamante ne tàmbali na ñaari weer gannaaw gi am nay jafe-jafe Ousseynou Fall nag moom mooy chef d'antenne nag Promosen nag ci centre commercial Mame Astou Diankha indi na leeral nag ci xayma ñaata place ñoo foofu foofulee ci centre bi waaye tamit nag anam ba ñu dellooyee nag ñi nga xamante ne bii ñoo nekkoon ay commerçant euh, te itam nag ñu teggi woon leen ca bërëb ba laataa ñu koy defar euh, ci anam bañ leen dellooyee seen place kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ñu ko taataanaan. marché bi li fi nekk si cantine maanaam ñetti téeméer yu manqué juróom la biir ñetti téeméer yu manqué juróom yooyu fukk ak yoo xam ne nii ay magasin lañ léegi nag am na yeneen yoo xam te ni ñoo xam les tables fii jaaykatu fruits yi ak légumes foofu mu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent donc boo boolee cantine ni juróom-ñaar téeméer yu manqué juróom ak table yi dafay nekk presque juróom-ñetti téeméer yu teg euh, fanweer ak euh, juróom-ñeent loolu mooy li nga xam ne ni tey loolu la marché bi bu dee place bu nekk benn nit dafay nekk juróom-ñetti téeméer nit la ak fanweer ak euh, juróom-ñeent ñu ngi waajal gàmmu gi est-ce que bi xaw na yokk tuuti bon commerciants yu bees yi nga xam ne tey ñu ngi ñëw bon peut-être nit ñi dañuy sentir ne durant gàmm gi commerce bi dafay xaw a dox peut-être ñoo tax ñu yàkkamti pour ñëw jéem a occuper place yi parce que ko xam Médina xam nañ ne gàmm gi nit ku fu nekk lay jooy ko donc peut-être dañuy jéem a profité ci moment boobu noonu pour jéem a écouler seen produit peut-être moo tax installation fan yi di xaw a yokk tuuti parfois nit day ñëw ne la man sama place exemple ci kaw tali bi laa fa amoon te léegi ñu ngi ma jox si biir da ngay gis tamit nit ñëw ne man place bi ma amoon ci kaw tali bi place bu nganduloo woon ñu jox ma si giir léegi tamit da ngay gis nit ñëw ne man li ma bëgg a jaay

commerçant bi nga xam ne nii ci 288 yi nga xam ne ni tey dem nañ tëdd seen kër boo seetloo ñi nga xam ne tey ñëw nañ parce que Sénégal leen di fay loo xam ne exploité woo boo doon seet ñi nga xam ne ñëw nañ fay su ma jumulul matul 5 personnes automatiquement dafay handicapé pay parce que ki nga xam ne jël na caabiam tëj magasin dem këram tëdd xel nanguwul sax nga oo ko nekk kaay fay ñi oo sax nee nañ kaay fay ils vraiment négatifs Eh, ci wéyalu kàdd nag Ousseynou Fall mu nga cee ñaax nag ñi nga xamante ne ñoo di commerçant yi nag ngir ñu gën mun a suqali marché bu Medina bàyyi ndax itam nag li fiy teew ci mbooloo nag at wu ne war naa tax eh, marché bi daal ñu gën koo suqali ngir mu doon marché bu am nga dem eh, ci biir Sénégal doom Cheikh Tidiane Diagne moo ñu ko taataanal message bi may lancé population bi vraiment dañoo xaw am njàqate parce que marché bu mel nii waruguma marché Sénégal yëpp mais programme bi ñu yore ñu tuddee ko promotion programme pour la modernisation et la gestion des marchés bi ñu yore ñu bii mooy premier boo xam ne ñu ko exploité Sénégal tey ville bu toll ni Mérina dëgg yàlla marché bii nii tey dafa waroon nekk loo xam ne tey commerçant yi sax dañuy dem di ko njëkkantu parce que lépp loo xam ne nii def nañ ko pour commerçant bi nekk à l'aise rek am na ci biir marché bi mais li ñu seetlu mooy vraiment mooy ni ñu koy waxee dañoo jëm si gàmmu te ku wax gàmmu wax Mérina da nga gis façon xet bu nekk si àdduna bi da ciy bu demee ba tur bi yegg foo xam ne nii population bi yegguñ fa waxuma sax si Afrique mais sur le plan mondial ay roy teef war a nekk mais tey rafetul fii ay a nekk bi def mooy dañoo ñëw jël seen cantine tëj ko dem seen kër tëdd nelaw am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba ne cantine man soxlu ma ko sa tijji parce que am naa lu ma ko mën a jënd bu ñëwaatee dugg ci marché feneen lay dem parce que que mu nekk commerçant bi ak kii jënd yëpp ñoom dañuy soxla marché am na ñoo xam ne jënduñ jaayuñ mais dañuy gis juste marché bi animé ñu dugg di wër rek te marché noonu lay doxee marché ñuy jënd ñu ngi ñuy jaay ñu ngi ñuy wër ñu ngi ñuy xool ñu ngi parce que nit bu wëree gis bu demee dafay nettali lii ba la fa nekk mais tey boo demee looy wax ne marché bi tijjiwuñ kenn tijjiw ñoo xam ñoo nekk ci yeneen dëkk ñooy mu ñu ñes moo ko fi indiwul wax dëgg yàlla nag def na li def ba pare nag oo na ñëpp ku nekk mën nga tey ñëw réclamer sa place ñi bëri bëggoon nañ am mais amuñ mais ñi nga xam ne ni am nañ te dëkk si dëkk bi lii laay war a sóor seen place ñëw occupé ko wala bu dee soxluñ ko ñoom nañ ñëw wax nañ place yi soxluñ ko ñun ñu joxe ñu ko soxla moo gën ñu bàyyi ko fii muy tëju yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 juróom-ñeent fukk yu toftal benn ci diwaan bu Kaolack nangaan xarala yees yi tax ngeen koy teewloo ca biti réew ñu dem ca beneenu xibaar xiw service d'hygiène nag ak mairie bu Kaolack waajal nag opération euh, le 17 ak le 19 nag pompe dëkk bi euh, ci nag wàññi yooyu ci biir nawet bi capitaine bu Touré chef brigade régionale service d'hygiène la ñu ci teewlu euh, ci micro Alfayda démarré ak euh, saupoudrage bi ñu war a def ak waa mairie bu Kaolack defoon nañ ko fi bi may doog a ñëw bi aussi dañ ko bëgg reprendre parce que dañoo nekk ci biir nawet parce que opération bi dañ ko war a def en trois étapes dañoo war def opération pré hivernale au cours de l'hivernage aussi ñu def benn opération post hivernale aussi ñu def ko mais actuellement nii dañoo bëgg a benn opération bu nga xam ni au cours de l'hivernage boo xam ni parce que bële passé bi ñu defee defoon nañu les les caniveaux ak l'ensemble des points d'eau yu nekk fii def nañ fa délarvation li ci des nag moom mooy pour xeex ak les moustiques adultes yi nga xam ni ñoom actuellement nii bari nañ ci dëkk bi sentir nañ ko bi nawet bi commencé lañ commencé waat ñu meññ waat donc il faut que ñu def benn opération de saupoudrage boo xam ni day jël quartier Kaolack yépp bàyyiwuñu Kabatoki yu vraiment les quartiers environnants de Kaolack fépp la ñuy dem te boobaa aussi dañu war a utiliser pratiquement suñu moyens l'ensemble des éléments de la région de Kaolack des agents d'hygiène ñu indaale appui avec leur véhicule on aura au moins cinq véhicules pour def opération bi dans la commune de Kaolack date yi ñu jàpp mooy le 17 la ñuy démarrer jusqu'au 19 samedi dimanche lundi moom la ñuy def opération bi heure bi ñoo ngi démarrer à 23 heures mais bala ñu démarrer nag bëggoon nañu population bi jël seen mesure de précaution képp koo xam ni day jaay ci mbedd mu bàyyi njaayam tëj njaayam dem ñibbi këram pour bañ produit bi laal njaay boobu parce que bu ko laalee tooke lay doon parce que li ñuy utiliser tooke la bëgg nañ aussi ñu nekk ci biir kër yi seen ndaa yi seen ñam yi ñu tëj ko ñu bëgg aussi nit ñi reste ci seen biir kër yi bañ a génn bañ a exposé au produit parce que bu ñu ko inaalee day indi problème bu fekkee dem na nga bëgg ba xam ne nag mënoo bañ a génn nga sol masque boo xam ni te masque ba ngay sol sax du adaptable mais na nga sol masque boo xam rek dina amoy dina wàññi la pousse peut-être boobaa aussi ça sera moins dangereux waaw nag li ñu gënal mooy ngeen toog kër bañ génn Euh, ci nag bés yi nga xamante ne ñu ngi ci jëmbatub garab nag nguuru Sénégal soobu ci lool ci jamono ji euh, tax ba nag ci diwaan bu Kaolack kilifa yi itam ñoo ngi cee bay seen waar bokk ci kilifa yooyu di bàyyi mbay ñas taxawal nag politique de développement euh, ci nag jëmbatub garab nag ci diwaan bu Kaolack kàddu bàyyi mbay ñas ci micro Alfayda mbokk yi tey li ñu def nii dafa nekk benn politique boo xam ne lii la ñuy wax politique de développement ndax tey élection jotut nekkuñ ci dara waaye la ci lan la ñu nekk mooy naka la ñuy fexee ba suuxat ay garab waxuñu jëmbat garab de garab yi ñu leen jox nii dañoo bëgg ngeen suuxat ko suuxat garab ak jëmbat garab du benn jëmbat garab mooy nga ñëw rek samp garab gi suuxat garab mooy nga samp ko ba pare di ko toppatoo ndax garab dafa am lu mu laaj. te ñun mënuñoo dund ci àddina bi te amuñ garab moo tax ku nekk dafa war a bàyyi xel ci toppatoo garab yi garab yi naam fàggul nañ leen ko mu nekk ay garab yoo xam ne xeetu garab yëpp a ngi fi macha allah garab bi nga xam ne mooy aar bu paree bi mi ngi fi di mango indi neen ci biir aar bu fruitier yi tamit lu mel ni karasol indi neen fi lu mel ni konkonel indi neen fi lu mel ni sapoti indi neen fi lu mel ni grenade indi neen fi tamit lu mel ni yeneen xeetu garab yoo xam ne dafa nangu xorom muy mantalis indi nañ fi tamit Alvisia Labek indi neen fi aussi lasina moom it garab la boo xam ne garabu ker la mais en même temps arbre fourrager la boo ko sampee dix jours boo daggee xob yëpp bu amaatee dix jours xob yëpp dafay ñëwaat mooy ne dafa am loo xam ne dafa am énergie boo koy jox jur dafa baax ci moom ak rawatina nag garabu fruit moom ñëpp xam neen mango macha allah ci jamonoom ci lañ nekk waaye président de la république dafa am vision ndax dañ daan def bu journée de reboisement jotaan dañ daan benn garab ndax garab yëpp baax nag kër wala lu mel ni olom wala lu mel ni xay dégg nga wala lu mel ni dimbu wala lu mel ni wen yooyu lañ daam jël di ko def aar bu parrain di ko jëmbat te ci forêt bi lañ ko daam gën a jëmbat ndax garab tamit dafa am garabu forêt naam forêt yooyu baax na ndax forêt yooyu mooy capturer mbooleem environnement bi loo xam ne daf koy polluer muy saxaar si toxique yi yëpp forêt yooyu noonu mooy poumon vert yi dëkk bi moo tax dëkk bu nekk wala quartier bu nekk non seulement dafa war a am lu ñuy wax espace ver bëgg nañu loolu kaw la quartier bu nekk mu am benn espace vert ndax garab yooyu suñ borom daf ko bind pour mu mën a dund ak doomu aadama fu doomu aadama nekk garab dafa war a nekk fu garab nekk aussi doomu aadama dafa war a nekk ñaar moo tax Euh, ñaar yi ànd yooyu lee sax nag moo tax diwaan bu Kaolack nag jëmbat fi ay garab mën naa wàññi tàngoor bi wàññi it tamit nag wàllum inondation euh, ci diwaan bu Kaolack di xamle nag yu Baye Mbaye Niass ci woyalu kàddoom euh, ci micro Alfayda loolu war naa tax ñu jëmbat garab te ji nga suñu tàngoori Kaolack bii ngeen di gis mbooleem kuy scientifique wala kuy environnementaliste def nañu gëstu ba gis neen ne garab yi buñ ko gënee suuxat ci biir Kaolack mën na wàññi degré tàngoor bi deux degré ba trois degré te kon boobaa gis ngeen tàngoor bi nu mu mel nii te dafay gën a tàng te bu leen fàtte ne ñi nga xam ne suñu ay maam wax nañu Kaolack ni meloon tàngoor bii lu fi bees la naam ci suñu génération dañu gis muy gën a tàng ay 35 degré 37 34 ba léeg-léeg 40 garab mën na ci saafara loolu beneen bi est-ce que xam nga ne garab tamit fépp foo xam ne dafay indoné buñ fa sampee ay garab dafay wàññi inondation bi ci ñaari affaire lu factuel laay wax loo xam ne damay wax ba pare démontrer ko ba ngeen dégg ko garab bu sampoo ci suuf gis nga bu yàlla ji tawee lan moo tax ndox mi di mën a dem ci suuf ci nab bi gis nga reenu garab gi racines yi foofu lay ndox mi di jaar ci sew ndey di takk ci racine bi di mën a dugg di infiltrer wu ci biir suuf si waaye gannaaw loolu bu na ci garab yoo xam ne mën na filtrer cent cinquante dox ci suuf def ko oxygène produire ko mu dem ci jaww ji doomu aadama di ko nokkee te doomu aadama mënta dund te amut oxygène te garab tamit mënta dund te amut carbone kon yàlla dafa bind garab defal ko li nga xam ne moo koy dundal mooy poison bi nga xam ne moom lay doomu aadama di produire muy dem ci jaww ji di polluer suñu environnement ndax garab ñaar rek moo koy dundal oxygène ak carbone oxygène mi ngi fan mi ngi ci ndox mi kon ndox mi suñu borom moo ko téyel boppam carbone mi ngi fan mi ngi ci jaww ji moom jaww ji suñu borom moo tax yàlla di ñu wax ci alquran ne afaraaytum ma taxrusuun a antum tazaruunahu am nahnu zaariuun mujaa ndax yéen yéenay bay wala man yàlla may bay question la waaye ku ne xam ne ne doomu aadama bayut yàlla mooy bay ndax garab gii boo ñëwee tey samp ko léegi nii yow dam nga am di nga ñëw di ko toppatoo waaye li nga koy defal yëpp ci suñ borom la jógee na ndox mi te boo demee benn ngay samp am ay ton booy ji benn kilo ngay def góob ñaata ay ton kon dëgg-dëgg yàlla suñu borom mooy bay kon njëriñi garab li ci nekk bëri na bëri goo xam ne buñ ko doon wax duñu fi jógee eh, ci jëmbatu garab yi Baye Mbaye Niass amaloon nag ca na ñuy desandi ay kàddu jif fa nag bàyyi ko ca ña fa teewoon eh, ci nag solo gi nga xam ne jëmbat garab am na ko ci diwaan bu Kaolack eh, seen kaddu ci micro Alfayda. ñu ngi gërëm sëriñ bi parce que tey ay leader yu mel nii lañ soxla fii ci Kaolack parce que Kaolack dañ ko war a développé te Kaolack les leaders de Kaolack ñoo koy mun a développé seen bopp développement bii nag jëmbat garab moom def ci baax lool parce que ku ne xam na ne Kaolack dafa tàng Kaolack dafa bari xorom kon nag lii sëriñ bi initié nii ñuy def reboisement pour Kaolack dafay contribuer ci tàngoori Kaolack dafay contribuer aussi pour le recul du sel de Kaolack kon initiative yu mel nii lañ ñun ñu koy gërëm mu nekk di wéte président de la République pour contribuer au développement du Sénégal pour contribuer au développement de Kaolack kon jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant. am na limon. waaw aar bu paree bi mooy mango am na ah. uh-huh. am nga biir raisin la. am nga aussi flamboyant. incha allah garab yi. defar naa ñu koy ba pare. macha allah incha ko jëmbat. te da ngeen fa ñëw xool incha allah bu soobee yàlla. incha allah ci mbiru euh, moo ko digle mu doon loo xam ne lu am solo la si Sénégal lu am njëriñ la si askan wi parce ku ne xam na garab ban njëriñ la am ci citoyen sénégalais bi rawatina ci environnement Sénégal xam nañ ne Sénégal dafa manqué garab ba tax président oote ngir ñu jëmbat garab yi loolu dañ ciy remercier sëñ Baye Mbaye Niass El Alkaoulakoua bu baax a baax a baax di wax ne dinañ ci def yitte bu baax bu soobee yàlla garab yi dinañ ko toppatoo comme ni ko bëggee ba bu fi ñëwee beneen yoon incha allah dina kontaan. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda Euh, dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy teeloo fépp ci diwaan bu Sine Saalum Bawol ba jàpp waalo ñu dem ca beneen xibaar euh, gannaaw ay fanu tàggat nag euh, mobile national jàppale ko nag artisan yi nga xam ne ñoo fay téye ci Kaolack ñu tàggat ca nag ñaar fukki tëyër yoo xamante ne bii dañ leen tàggat ngir ñu mën a yokk seen xam-xam ci liggéey bi nga xamante ne bii ñoo ngi ci di Diop mi nga xam ne nag moom mooy président chambre métier bu Kaolack àdduna ci formation boobule ci micro solo su ndaje ji mooy ne dajale artisan yu Kaolack tànn ci ñaar fukk ñu di ay tailleur yoo xam ni ay atelier lañ yore am xam-xam mais ñu toll ci jamono boo xam ni kenn ku ci nekk dañoo war a yokk sa xam-xam pour que mu méngoo ak jamono méngoog li réew mi bëgg yàlla def euh, mobilier national may ñu benn formation muy état Sénégal pour que ñu mën a former artisan yi pour que ñu mën a bénéficier wu ci mobilier national ci commande publique bi mais yàlla def na itam bi mobilier national euh, jàppee formation boobu ñu wutal ñu formateur boo xamante ni waxuma la lim ñu defal tey mais xam-xam bi nga xam ni jëlee nañ ko ci moom ba xamanteeg moom ndax ñun suñu soxla yépp du dara lu dul yokk artisan yi lu leen defaral lu leen yóbbu ca kanam yàlla def nag ne tey ji xamante nañoo paate dootuñu jóg bi ñu mobiliser national wane paate léegi ñun danañ téyeel suñ bopp paate ba nga xamante ni formation dootul gëj a am Kaolack région bi yëpp bëgg nañu artisan yi ñu former leen ba ñu mën a jàngal xale yi jàngal boo xam ne ëllëg dinañ mën a am métier moo xam ne dinañ bàyyi dugg ci gaal yi am métier moo xam ne dinañ ci mën a dem parce que nit ki bu amul métier rek bu métier mi bënnut mën naa am mundil ko coono mais daal ñu ngi gërëm bu baax gouvernement Sénégal di gërëm bu baax mobilier national di gërëm bu baax formateur bi muy paate ki nga xamante ni defal nañu formation bu mucc ayib di gërëm itam artisan yi nga xamante ni ñoo doon participer ci formation bi parce que 15 jours yoo xam ne d'affilée la amul benn bis boo xam ne dem nga ko sa atelier wala dara te 8 dana la fekk fii ñiy jóge ci département yi muy Nioro muy Guinguinéo muy Kaolack wax dëgg yàlla am na solo am solo boo xamante ni sant nañ leen gërëm leen yàlla bu ñu rëcc dara ci formation bi. waaw ñu gisee président Diomaye ak euh, premier ministre euh, artisan yi lañ koy indi ñoo koy defar kon ku ñëw ci réew mi bëgg koo jubal bëgg koo jubbanti ñun ñoo danañ nekk sa ginnaaw danañ la jàppale guddi danañ la jàppale bëccëg li ci def mooy ñaanal leen yàlla yàlla seen mission bii ñu am ci réew mi yàlla may leen kattan guñ ko mën a àggalee ba nga xamee réew mi danañ wax na yéex nañoo jot ci ñoom état li artisan yi di xaar ci moom mooy recaser leen ñu am ay place mooy encadrer leen ci financement financement bu répondre ci norme artisanale Euh, ca diiru fukki fan ak juróom bi ñu leen doon tàggat nag ca jeexantal ba ñoom ñaar fukki téyeer yi nag daal di nañu yëkkati seen i ay kàddu ci formation bi euh, solo bi nga xamante ne bi am na ko ci jàppale leen ci seen liggéey euh, seen kàddu ci micro Omar Cissé. yëkkati suñuy kàddu nag ci turu téye région bu Kaolack ñu gërëm président ñu am cant ak ngërëm teg ko ci suñu loxo président di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bi di wax ne président ñu àndal nee soppiwul man mii de maa ngi ko mos gis. formation bu am 15 jours amul teggi tànk bër bu set bii ñëw tey du bokk ak bii ñëw suba kon nag loolu ñu ngi ci sant bu baax di gërëm di wax autorité yi tamit ñu ngi leen di dénk suñ président parce que xam nañ ne président lépp lu mu jot ñun artiste Saloum danañ ci jot kon nag ñu ngi leen koy dénk ñu ngi ci gannaawam di ko dooleel tey di ko dooleel ëllëg lépp loo xam ne ni rot na ci loxoom rek ñun yaakaar nañ ne dañ ci jot. ñu jox xaadim sàmb kàddu bi. daje bi fi dajee nii tey mbégte la ak xol bu sedd ak contente bu ñu am dañ fee dajee woon pour def si li nga xam ne mooy formation durant quinze jours président Sidi nii toog ma seedeel leen ne fukki fan ak juróom yoo xam ne bët bu set ñu indi la xam-xam boo xam ne dana wuuteeg bi fi jaaroon président Sidi kontaan nañ si bu baax a baax. kon dañuy jàll rek ci Seynabou Cissé. nuyoo tonton Sidi Diop. di ko jaajëfal euh, formation yi ñu indil fii nii. di kontaan loolu nag ndax parce que lii gëj na fee am mos na fee am sa waaye nag 15 jours yi ñu am fii nii neex na neex boo xam ne jëlee nañ si mbégte boo xam ne ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax di nuyu suñu tontoo gay mi ak euh, monsieur Der mi ak euh, madame Keita Mbaye Diouf bi ñu jëlee suñu président. de la Chambre de métiers de Kaolack nommé ko comme le président de la commission chargée de la formation au niveau de l'union des chambres de métiers mu bëgg nag ci objectif yi mu am def de Kaolack silébé yoon mooy hub de la formation professionnelle moo tax depuis octobre 2023 jusqu'à nos jours bëri na ay formation yoo xam ne jaar nañ fi sur le côté des machine agricoles sur le côté de la couture mais aussi ci formation tapissier kon kooku objectif am yi xam nañ ko mais ngelal na ko autorités yi jàppale ci mobilier national bi. Latir Ndiaye nag mooy préfet bu Kaolack doon it formateur euh, mobilier national nag yëkkati na ay kaddu euh, ci nag taxawaay bi nga xamante ne président Samba du métier bi am na ko ak artisan yi ci diwaan bu Kaolack kaddoom ci bixukaayu Omar Cissé di sant di féliciter le président de la chambre de métier ci effort yi nga xam ne euh, mu ngi koy def pour secteur am dox mu am ci lu ñu ci xam waaye li ngeen fi jot a wax aussi day firndeel taxawaayam bu rafet ci biir chambre chambre de métier day firndeel aussi relation yu rafet yu mu am ak artisana yi di wane itam relation yu rafet yi mu am ak chambre de commerce ak maire yi donc loolu muy lu am am solo di ko ñaanal yàlla dañ ko taxawu ci responsabilité yi mu yore ndax président chambre de métier déjà lu diis la boo ca boolewee commission formation l'union des chambres de métier yaakaar naa ko amul ambition soo boole ñaar yooyu ndax ku ne artisan la ca gën a am solo mooy formation ndax dañu ne balaa nga ne naam ne fa te artisanat mu lay cëslaay ka mooy formation kon ñoo leen di félicité di leen encourager euh, ci yoon bi ngeen jël di ñaan artisan yépp ñu jàppale ko ndax su amee doole ñu nekk ginnaawam di wax ne lii mooy dundal chambre de métier parce que bu ñu dajalee ay nit pour organiser leen lañ cay soxla mooy ñu cee jële njëriñ te chambre métier boo xamante ne du am activité boo xamee ne nit ñi dañ cee gis seen bopp mën nañoo wax ne chambre métier boobu dundul kon bu ñu amee activité formation te ci kat ci biir kat dañu dégg ne am na yeneen ñu fa yu ci jot am am na yeneen ñuy séentu dañoo jàpp ne chambre de métier bu Kaolack mu ngi dund ndax loolu lañu gën a soxla ci chambre de kon ñoo ngi leen di féliciter. ñu bàyyeekoo ci tàggatu artisan yooyu lay dem ci wàllum yoon ak àtte eh, tribunal TGI bu Kaolack nag ñu wëy eh, di gis nag ay ndaw yu bari nag di fa taxaw eh, ci lañu ñu leen fay taxawee sax mu jëm nag ci wàllu nag tëkku wala sax dem nag bay teg lu métti seen i ay waajur mu mel ni nag mbir moomu doon na mbir moo xam ne ñu ngi koy woy eh, di ko gis muy gën di bëri nag ci société bi eh, ca tirbinal ba ñu teewlu ci seen chronique judiciaire ak Ndeye Fatou Cissé doom juy teg fitna saaga dóor tëkku ni yeneen i xeetu bundu euh, kenn wala ñaari waajuram drame la euh, ndax saa bu ko njaboot di dund njeexital yu métti la leen di jural mën a naxasal bu baax li société bi di xaar ci ñoom euh, yoon di ko woyee violence à ascendant mbir mi amoon ak tan ay weer ci ginnaaw ak dossier yi nga xam ne mooy egg ci bërëbu àtteekaay bi ci ressort judiciaire bu Kaolack ak seetlu di wane ni kon mbir bu ni mel la dafa solaat dàllam di dox victime ya di yaay wala baay seeni doom ñoo leen di teg li nga xam ne ay xeetu jëf yu métti la mbaa kàddu egg sax ba ci tëkku ne dinaa la rey seeni doom ya leen koy teg jëfandikoo loo xam ne nag daf leen di tàggaleeg seen sago waral seeni jëf ñaare bu ñu leen tegee loxo ba leen di àtte dañuy rëccu mbaa sax ñu dugg ci ak deni maanaam di weddi li seeni waajur di indi ni ak cause gu waral kon mu indi leen ci kanamu yoon ngir sàkku foofee ak ndimbal ñu ca bari nag dañuy fësal ci kanamu àtteekat bi ne ñoom seen doom dafa yóbbu seen fit dootuñu dëkk ak moom ah. ñeneen seeni waajur ñoo leen di solo robu avocat di leen layal ngir ñu delluwaat ci seeni loxo démb ci audience flagrant délit bu TGI bu Kaolack ci ñaari mbir ah. ñel kon loolee ñu naan violence à ascendant di teg fitna gu tar yaay wala bàyyi ah. ci ñaari dossier yu wutee tribunal bi jibal na ca penub sursis avertissement waaye tamit benn at boo xam ne ñetti weer ya daanub kaso bu ñuy tëdd la ci kaw ñaari prévenu di ay ndaw yu góor gannaaw ba tribunal ba dëggalee ci seen kaw li nga xam ne nag moo taxoon ba seen seeni waajur eh, indi leen ci kanamam eh, fukki dossier ak juróom-benn yu la eh, fukki nit ak juróom-ñeent bërëbu àttekaay ba càmbar naka démb ci àllarba ji penub sursis bàyyi gunu lal ci bénéfice di doute dogal bu ñu aj ay weer ngir féexal ko am lantek moroomam mbirum koppar te jafe-jafe waral ba yoon jot ca ngir kookee ni kon prévenu génn liggéey ba mën a fay laata justice di àddu di yenn ca décision ya nga xam ne nag bërëbu àttekaay ba jibal naka démb ca prévenu àtteekaay ba démb jibal na ci seen kaw daanu pa ñaari ati kaso yoo xam ne dañu koy tëdd ngir mbirum Sinébar bokk na ci ak góor goo xam ne ay atam lu mu yées yées ma nga toll ci juróom fukk ak ñett la avocat wam doon sàkku ci juge bi nag ngir mu soppi tuuma yi nga xam ne moom la ñu gàlloon ci ndoddu client wam maanaam ne kookee dafa yoroon yàmba te lam ci jublu woon mooy jëfandikoo ko mujjuta sotti ndax bërëbu àtteekaay bi nag gannaaw ba mu saytoo mbir ma joxe ca dogalam ca saasa dafa dëggal ne nag kii way takk der yi fekkee lam ca jublu woon nag mooy di ko jaay mbaa may ay nit li ni mel kon lamu ko jural di ñaari àtt yoo xam ne kon caabi da ko cay féete ginnaaw xabaar yi bitim réew xibaaru biti réew yi Alioune Badara maa ngi lay dalal. maa ngi lay ziar baax a baax euh, soxna Mariama xibaaru bitim réew des ko doole nag euh, foofu ci réew bu Burundi wax ci nag lu toll euh, ñaar fukki at ci tey bi nga xamante ni nag jot nañ ñemeeku nag guddib fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru août atub 2004 téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn doomu aadama yoo xamante ne jotoon massacré nag foofu ci réew bu Burundi mu doon mbir moo xamante ne bu doy waar lool li ni mel nag léegi ni démb mu am lu toll ñaar fukki at ñi nga xamante ne ñàkkoon nañu seen mbokk ci li nga xamante ni moo ñeel massacre bi li mel ñoom ñee nag ñoo dàbbali waa li nga xam moo di procédure ñeel li nga xam wàllum yoon ngir kat ñu indi leeral ci faatu ñi nga xamante ñu ñàkkoon seen bakkan te seen lim na tolloon ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ginnaaw bi nga xamante yoon nañ nemmeeku nag yëngu-yëngu yoo xamante ni nag jot na am foofu ah, ca réew bu Burundi askan bi ne nag jàpp ne yoon war na def liggéeyam nag indi ay leeral ñeel li nga xamante ni moo di faatu seen mbokk yooyu li xabaar bu réew nga xamante ne fas ko feete ni ngi tey jilee a jàpp ne nag dana doon ab commémoration boo xamante ni yi fukki fan ak juróom ci weeru août ci njiitalu ki nga xamante ni moo di njiit réew mu di Paul Biya xabaar foofu ca Cisjordanie wàcc nag lu toll nag juróom-benn fukki téeméer ak ñaar fukk ak juróom palestiniens yoo xamante ne jot nañu ne faat nag te ñu def lu mel ne du ñeen ñu dul armée israélien bi mbir yi mel mu doon loo xam ne dañ koo ràññee lool foofu ca réew bu Cisjordanie rawatina fi nga xamante ni moo di ca bande Gaza violence yi nag di wéy di takkarnaa si nag li ni mel di wane nii fitna ji nga xam mu am ci diggante réew bu bitim réew la gërëm la bu baax a baax soxna Mariama fii la ñuy ci xibaari bitim réew yi yàlla muy borom jàmm te ku mu jàmm nga am jàmm yàlla ñu may jàmm jaa ngeen jëf. Mariama Ba maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak euh, tiis bi nga xamante ni moo dal ci euh, monde sportif bi rawatina waa ak lu làmb ak génn àdduna démb ki nga xamante ni moom mooy euh, Babou Ngom dëkk fii ci Gandiaye foofu sax ñu ko rob démb bi mu génnee àdduna démb nag ca rob ba monde sportif bi rawatina làmb ñi ci bëri teewoon na ci li nga xam ni moom mooy rob bi kii di Simon Sène ak Mor jot nañoo yëkkati ay kàddu jëm ci nga xam te ni moom mooy ndem si yàlla Baba Ngom baabu yàlla moo ko bindee woon noonu di ko cosaan la woon bugg doon affaire tubaab tubaab bugg doon affaire rey reylu mm-hmm. li mu mënoon nag moo ndax dama xam xolam baabu mm-hmm. amuloon morom boo ko magoon sax bu ñëwee def la bu la magoon sax bu ñëwee def la morom ku baax la woon ñu di ko ñaanal rek yal na ko yàlla yërëm jéegal ko tegg loxo nag ci ay doomam yii doomam ji nga xam ne moo fi ne vraiment yal na ko yàlla sutura bopp ay fan te carrière bu baa bu def. li ci des yàlla ko moom moo àggale. amiin léegi ñaari kàddu rek. waaw gannaaw ban waxee baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi jaale moom lañ ceeb. Babou Ngom muy vraiment un artiste hors pair nit koo xam ne nii nit ku baax bëgg mbokkam bëgg nit ñi. wax dëgg yàlla di jàmbaar kon yaakaar naa ne bu fi jógee mhm. suñu teewaay fii moom ñun kenn duñu laaj le pourquoi et mhm. na waaw baabu bari na xam nga baabu mhm. lii si moo wax léegi rek moo di ci ne maanaam ñun moo ñu mag fuuf motul ñu jaay wala sax mot ñu bàyyi waaye day ki nga xamante ni maanaam képp koo xamante ni gis na la rek dalay def ni morom dalay def ni morom bëgg ñëpp maanaam ñàkk laa gis fenn moo tere mu ñëw ko ci say mag dée la loo boo meroon sax def rek di nga def yal na yàlla xale ko àjjana amiin yal a yàlla jégal ko a njabootam yi fi des yal na yàlla teg ci loxo amiin yàlla ci loxo yi moomu ni si moom tey moom mooy seen président xam naa ne incha allah rabbi ajuma yaakaar naa ne euh, ñoom ñëpp dañu fi teew soobee incha allah ñëw bi mu ñëwee daa reetaan ma téye ko ne ko jël naa ay programme nga tëdd fii jógal bugulu yomb nga def walaay buñ toogoon nii sax dañuy waxtaan di kaf di ree ba su ma ñibbee sax tantaay moom ak yaayam dañ may woo ne seex yow bu fi di ñëw su ma ñëwee fekk ko buy nelaw ma ne ah tey dama kaa fekk muy nelaw xaaral ma ñibbiwaat su ma ñibbee danaan ñëw moom moo seex bu ñëwatee su may nelaw sax yeeleen ndeysaan wallaahi mu nekkoon sama papa su ñëwee ko da ngaa bëgg lu la mm. ma jëntal dafa ne seex ba a dox su may tukki mm. balaa maa dem fenn dinaa ñëw Joal seet si la fa une wala ñaari fan wallaahi mu nekkoon ci ngoon na ginnaaw bi ñu dencee ki nga xamante ni moom mooy Babou Ngom nekkoon tëggkat bu mag bu ñu ràññee mu génn àdduna ñu rob ko démb foofu ca dëkkam maanaam ca yi ñu waxtaanee basket ak ñaari jongante xarito yi nga xamante ni doxoon na ci diggante Sénégal ak Tunisie ku nekk nag benn ndam nga am ndax euh, match bu njëkk bi Sénégal moo amoon ndam démb dak Tunisie moo am ndam boo jongante bi jeexee yenn ci euh, basketteurs yi am na ay kàddu yu ñuy yëkkati ñu déglu leen. match yi moom xam nga bu ñu ñëwoon pour gagner mais bu ñu gagner tamit graaw dafa ñu ciy jàng yàlla def nañu gagner premier match bi deuxième match bi xamoon naa tey te ça s'est vu sur le terrain ay lañ def mais kontaan naa ñoom parce que deuxième mi lu ñu mën woon ñëwaat nañ ba deux points ba am chance gagné match bi fin ñu gagné pour man du baisse niveau parce que booy xool ñaari joueurs ñoo joué tey te keroog joué wuñu sax xam nga ay jeunes lañ bon expérience loolu fépp la du même ay NBA ak G League jeune yi boo duggee terrain pour ñu kaaw a miin terrain day jël temps moo tax tey dafa nekkoon chance boo xam ne parce que comme loolu la jeunes yu bëri ma mosuma leen gis ñu basket Mohamed Camara Mohamed Silla ay petit presque moitié équipe bi wala plus mosuma leen gis ñu basket te ñu basket deux semaines yu fi nekkoon ak ñaari match yi di mën a baax ma xam ban genre jour ah, ça va dépendre parce que on a sept à huit joueurs qui sont ça pas dire que dañuy ñëw rek jël seen place tamit compétition lay nekk mais novembre ay deux trois jours nga entraîné. lii yëpp daf ñuy jàngal quoi dañuy dellu suñu club bi ñu dem entraînement bu baax su defee ñu seetaan vidéo yi nga xamante ne mën nañ euh, si erreur lu ñu def yooyu noonu ñu jàng si comme ça bu dellu suwee ñu mën a am ndam résoudre problème gis na tey yéen seen loxo jubul torop ci ñetti points yi lan moo waral loolu da ngeen ci entraîné wul wala. ankay dañuy sànni bale bu baax xam na terrain bi ñun du ñu critiqué terrain bi fii lañ dëkk mais condition yi mooy loolu ba dañuy sànni mu dugg day même NBA noonu la te da ngay sànni mu dugg suba du dugg so situation noonu bu amee da nga siy jàngat rek xool beneen yoon soo sànnee dugub loo war a def loolu da nga siy jàngat lu bëri match boo gis bu ñu mën a joué dañ siy lu bëri parce que boo xoolee match yi benn ñu perte benn comme ni mu ko waxee Tunisie équipe bu baax la duñu leen sous-estimé comme aussi équipe bu baax la te ay xale lañ lu ñu a def mooy dellu seetaan vidéo yi entraîné waat ba mu gën a baax ah, man damaa yeewu rek taal sama téléphone di sama xarit di ma message noonu laa ko sama objectif mooy dem entraîner réaliser sama rêve ma soxlaa ma ñëw représenté ko sama rêve mooy jouer NBA ñu jóge ci parc yi dem ci pelouse yi ak li nga xam te ni moom mooy finale super coupe d'Europe démb la ñu ko amal diggante Real Madrid bi gañu woon Ligue des champion ak euh, ki nga xam mooy Atlanta Bergame bi gañu woon coupe UEFA ca cappaandaw ga nag euh, Real Madrid euh, moo am ndam ñaari bal ci dara di match bu njëkk bu Kylian Mbappé ci maillot Real Madrid di match officiel waaye moom moom sax dugal na ab but mu daal ni nag li gént la gu fireeku ndax mi ngi ko doon xaar boobaak léegi yàgg loolu beneen foo xam te ni nag euh, amal nañ fa ab euh, demi final moom mooy euh, ci asi ci diggante Al Nasr ak Al Town xam nañu nag finalu super coupe d'Asie dina doon diggante Al Nasr bu Sadio Mané ak Al Hilal bu Kalidou Koulibaly ginnaaw bi ñoom Sadio Mané dooree démb Al Town ñaari bal ci dara. championnat d'Espagne tey ji lay door bëccëg bu njëkk bi ci diggante Atlético Bilbao bu juróomi waxtu jotee war laale ak euh, Getafe bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili Betis mooy laale ak euh, Gérone ma ngoog Mariama Ba li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jëf. xibaar yi ci Alfayda. ñu dem ci xibaaru yoonu màggal gi ak Mamadou Moustapha Mbaye. bismillah. jërë ngeen jëfati mbokk yi amoon mbégte loolu di ànd ak yéen ci yoonu màggal gi fukki fan ak juróom-ñett ñu koy fàttali ci weeru safar mooy màggal gi di bis boobee nga xam ni kon Cheikh Modou Bamba ànd ak tubaab yi dem ci loolu leen di duppee natt wi ren muy dëppook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ci atum 2024 di ab aljuma ñu leen ko waxee woon jamono ji ñuy waxee yenn délégation yu takko takku bawoo ci nguur gi ñu ngi ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci ñooñee ki nga xam ne kon mooy yooyu mbirum wér gi yaram dajeeg Cheikh Bass Abdoul Khadre nguuru Sénégal génne juróom ñetti téeméeri million daal di koy jox hôpital yi ak dispensaires yi ngir jàppale leen danañ ci ànd ak Cheikh Bass Abdoul Khadre fekk na waa SAPCO ñëwoon dëkk bi bokk na ca kàddu yi ñu yëkkati kon li jëm ci wàllum tourisme religieux wax ni kon danañ fas yéene xaatim benn këy liggéey it ànd ceeg waa Hizbut Tarqiyyah loolee mbokk yi mooy li nga xam ne indi nañ ko ci yoru màggal gi bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu Mamadou Moustapha Mbaye ministre de la santé ñëwoon ci dëkk bu sell bi Touba la nga xam ne kon fës na mooy bi nga xamee ni kon dem na ci hôpital Ndamatu seen dikkaa ba nga xam ne moo tënk ña ne daal génne nu ay pancarte wan ko wane ni am na nañu ay jafe-jafe yu takko takku donte takkunu brassard rouge donte yuuxuwuñ ko waaye wax nañ ko la nu la woon gannaaw loolee ministre de la santé ñëwoon ci Cheikh Bass Abdoul Khadre daal di indi li nga xam ne kon moom la nguur gi dugal ci ay koppar ñeel hôpital mu toll ci juróom-ñetti téeméeri million Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre rafetlu boobu jëf ñu déglu ko sëñ Abdou Lahad Ka leeral na ma lépp ci taxawaay yi nga xam def ngeen ko ci dëkk bi muy taxawaayu kawe kon loolu moom dañ leen ci sant di leen ci gërëm di nuyu docteur Dieng mi nga àndal ak ak yitteem ci jàmbaaram di nuyu directeur hôpital Modou Lo Fousseyni ak day màgg Dieng di nuyu directeur hôpital Ndamar kenn daal boo limee da ngay juum waaye li ci am solo daal mooy yitte ji nga xam ne waa commission bi yor wàllu santé ci comité organisation bi at yëpp ñu ngi ko daa wax ndax daanaka mooy mooy li jëm ci wàllu kër docteur yi mooy garab yeeg ndax xam nga ne nit ñi bu ci waxtu màggal yi ay téeméeri poste lañ ci def ngir nit ñi mën cee faju mottoo ñaar téeméeri million kon bu ngeen ko yóbbu ba huit cent millions loolu kon yëkkati ngeen ko bu baax kon day mel ne ba ñoom ñuy sàkku ñu yokk ko sax dañoo waxoon ne màggal gi dox na fukki at nangam te daanaka li mu yokk bëriwut te nit ñi li ñu yokk ëpp na kon bu ngeen xaymaa leen seen bopp ba jiitu ñu ci loolu ak cant ak gërëm képp lañ leen ci amal di leen bu baax yàlla dimbali leen ba noppi indi fi wér gu ci réew mi

ndax li ngeen wax màggal gi dafa tombeeg nawet te nawet ku ne xam ne day àndaale ci jàngoro yoo xam ne bu dara xewtoon tam day am bu ànd ak mbooloo mi dajaloo te am na ci loo xam ne li ci ëpp ci ndox mi ak weñ yi ci lay jaar wéer de yu bëri bëri yooyu yëpp ci gàttandu gi la bokk kon nag ñi ngi ñaan ñu àgg ca jam te yàlla suñu borom bi nga xam ne mooy saafara ndax mooy technique jàngoro waaye moo koy saafara yàlla nañu dimbale ba màggal gi ñu génn ci jàmm te kenn bañ a gi ndax màggal gi moom nañ ko waxee woon 2022 rek suñ suñ bakkan jëraluñu ñàkk jëfe ndigalu suñu Tuubaa kon nag yàlla nañ yàlla dimbale ba fekk ñu nekk ci jàmm rek ndax moom bu ak wér di amoon du ci yàq dara kon nag loolu yàlla dimbale ñu ba màggal gi ñu àgg ca jàmm te dara bañ xew lu jàmm bu jàllee itam dara bañ a amaat lu jàmm rawat ci wàllu wér gu ñu leen di beesal ak cant ci tuuru sëriñ bi leen ñaan bu baax yàlla kàttandal leen ndax yaakaar ji nit ñi am ci yéen yaatu na te lépp yaakaar rek a tax kon nag yàlla na suñu borom dimbale ba yaakaar ji ñu am ci ko tas ndax loolu mooy doon njëriñu nit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw Cheikh Bass Abdoul Khadr waa ko it ñëwoon nañu fii ñoom daal di leen ñeen mooy tourisme religieux loolee nga xam ne kon ñu ngi koy amal ci dëkk bii di wax ne kon doyul kese ku ñëw dem ci jumaa jeg yeneen di bërëb am na yeneen i fonk yu nga xam ne mënees na ko yaatal waa SAPCO wax ne kon danañ xaatim benn kayit ànd ceeg is bu tarxiya ñu déglu leen donc dañu ñëwoon tey di Touba comme niñ koy defee chaque bu màggal jubsee ñëpp di ñëw wut si ñëw pour noonu pour wuy si ci woote boobu noonu mais indi aussi tamit suñu doole suñu doole mi ngi toll ci lu met lu toll ak ay benn tasseuse de dernière génération yoo xam ne bi ñu ko jotee yàggul ñu ni pour la première fois ñu koy dawal nañu ko dawale ci màggalu Touba gi nga xam ne màggal la goo xam ne ça draine des millions de sénégale donc et màggal la goo xam ne tamit fépp lañ koy suivre ci àdduna bi ñu ni occasion la pour SAPCO mu ñëw wane indi dooleem mais joxe aussi tamit ay chauffeurs yoo xam ne tout au di màggal ñoom ñoo fiy nekk di dawal benn yooyu noonu jàppale waa Touba ci liggéey bi ci wàllu tourisme comme ni ñu ko waxee sànq rek sànq ñun ñu ngi jógee ci résidence Hizbut Tarqiyyah donc sànq rek ñu ngi koy évoqué ak le responsable wax ko ni ko am nañ sax projet de convention ak Hizbut boo xam ne ci wàllum tourisme religieux maanaam tourisme religieux bëgguñu rek mu yem ci ñëw ci Touba rek visiter xabru yi génn dem mais mettre en place yoo xam ne tey jii nii dina contribuer ci économie wu Touba mais au delà de ça dina contribuer w ci économie wu Sénégal donc parce que Hizbut Tarqiyyah ñoom dañuy liggéey ci lu mel ni wàllum cartographie ñu site bu ci nekk fan la sëriñ bi mos a jaar lan la fa def ak yooyu te yooyu nag tey booy wax tourisme religieux yooyu mooy contenu bi nga xam mooy jox doole tourisme religieux te loolu liggéey ci ak ak Hizbut Tarqiyyah dafay doon loo xam ni SAPCO daf ciy gagné lu bëree bëree bëree bëree état du Sénégal tamit di ci gagné lu bëree bëree bëri ndax ñoom parce que liggéey bi li ci gën a métti yëpp ñoom def nañ ko. mbokk yi lii la leen indi doon ci yoonu màggal gi di leen ñaanal jàmm di leen wax ne kon ko doon fàttalee saa su ne dëkk bu sell bi di Touba mbooloo mi takku na lool inondation yi ba léegi bi ngi ciy fës Hizbut Tarqiyyah ci jëmi boppam it mi ngi installé ay bâcham ci wetu jumaa ji daanaka mënees naa wax ñoom seen yëngu-yëngu tàmbali na jumaa ji foo toll fu ne yaa ngi gis kon kenn ku ne yaa ngi teg say xasida loolee lu ñu yaatal la ci yeneen i jotaay mbokk yi ñu ngi leen ñaanal jàmm di leen dugub daje incha allah ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatuhu المخرج mbokk yi lii ñoo fi rusé woon ci ay xibaar Alfayda FM juróom-ñeent fukk yu toftal benn xibaar yi ma feggoo woon ci ak Serigne Moussa ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñu doon teewlu xibaar yi kàddu bi doon bàyyi ko si studio Alioune Momar Lo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bi di dina Baye ñuy ñaan rek yàlla muy borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm yal nañu yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokk yi cant ak ngërëm ñeen na leen wooy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM yi ak Mariama Ba. Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar.